di ñaan yàlla dolli jàmm ak yërmande ak barke di ziyaara ñëpp di leen ndokkeel ci feet gi ñu jógee tey dellu di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul bépp jullit yàlla may ñu fekkee déwén ak at yu bari barkeb alquranul karim yàlla boole ñu jéggal mbooleem bàkkaar yi saafara jàngoro yëpp te faj xaajo yi barkeel yëngu yi te teeyal dund gi wa ma dalika ala allahi bi aziz gannaaw loolu ñu ngi jéggulu mbokk yi ci gëj gi nga xam ne gëj nañ ko ci daara ji ngir xat-xat ak yittey jamono waaye alhamdulillah ñu fas yéene tontu laaj yi fi rot tàmbalee ko ci laaju sëriñ bii di sëriñ mbay fall kooku nga xam ne julli tabaskee ngi waaj a ñëw mu wax ne moom tàmmuwul tàmmuwul di xotti di ñawlu kon day jënd ay ensemble day jënd yërey tubaab moom lay jullee lan mooy atteb charia ci loolu waaw sol lu bees loolu bokk na ci yi sopp bokk na ci yi ñu sopp ci feet ci tabaski xam nga alquran dafa santaane ne xuzu zinatakum inda kulli masjid zina nag bu ko borom bi waxee ci barab bu mel noonu mooy nit ki waajal bokkam waajal xolam ak ay jikkoom ak melokaanam waaye li feeñ ci moom muy gannaaw ba mu laabee la muy sol yépp rek doon lu taaru borom xam-xam wax ne taar ci julli gi jumaa waaw taar ci mboolem julli yi boo amee yëre yu laab yëre yu set yoo xam ne laab na mën naa julli waaye set na doo dem ca jàkk ja di taqal wala ngay xeeñal kenn loolu taar la bu dee jumaa nag ñu tàmm ca lu weex mooy taaram waaye bu dee eh, lu mel ni tabaski wala korite lu bees loo xam ne lu bees la lañ ca tàmm loolu nag ak nu mën a mel li feeg dëppoo naag ni yërey jullit wara a mel rek alhamdulilahi rabbil alamin ndax lu ñu ñawlu la wala lu ñuy eh, lu ñuy sol la rek gannaaw bañ ko liggéeyee ba noppi loolu amul ci solo kenn ku nekk na ko yëgee na ko bëggee daal li am solo mooy dafa am charia bëgg jullit di solo te mooy na suturaal awraam dagamul ci jullit bi muy sol col guy feeñal sol loo xam ne muurul awraam di génn ak moom rawat na jullit bu jigéen bi moo tax yëri yi bu fekkee suturaal na awra nekkut lu yaraax nekkut lu xat lu dañ nekut lu gat bay feeñal xawraam waaye dolli ca bu dee góor nekkut lu re re bay bubu ci suuf di di di di di tilima ka taq sobe ndax yërey jullit bu gor mom moom wala yakun ilal kaabayn fa huwa andafu li sawbihi wa atqa li rabbih bu yemee ci ñaari dayjoram ñaari dajoram bu yemee ci ñaari dajoram loola moo gën a mën a setal ay yëreem mo gëna deppo ak ragal yalla waye bu ko weesoo di laal suuf nak loola lu mën a la du bokku ci li ñu tàmm ci yërey jullit kon ci gattal sëriñ mbay mbokk momu euh, sol lu ñu xoti ñawlu ko ak lu ñu defar ba noppi nga xam day jënd rek sol yooyu ñoyam kep kenn ku nekk ak la ko gën a ak nam ko gëna a rek laaj bi ci topp sëriñ mbay wàdd mbokk moomu nga xam ne doon na jënd ak ndawal ñu jaawale jaay ko ndawal gu xaraam ndawalu mbaam xuux ba mu ñëwee ba këram la xam ne lii ndawalu mbaam la lu xaraam la ci moom waaye mu ngi dëkk ñu dul jullit ñoo xam ne soxla nañ ko ndax sañ na leen koo may walla déet tontu li mooy déedéet ndax ab jullit lu muy maye day doon lu moom mbaam xuux nag jullit sañu koo moom ci genn anam lu mel ni mbaam xuux lu mel ni sàngara yooyu sharia xaraamal ab jullit da ko sañu la moom te kenn du may lu moomut moo tax boo ko bëggee maye ba nga koy maye rek booba yow nangu nga ne yaa ko moom moom nga ko door koo mën a maye te moom gi lu xaraam la moo tax bi xamee ne dañ koo jaawale jaay ko lu bokkul ak lam bëggoon bu dee lu mu mën a delloo laa na ko delloo ji jël alalam jënd ci ndawal gam bëgg a jënd muy ndawal gi lislaam daganal bu dee loola jàppandi wut na ko sànni ji na ko sàkkal pexe sànni ko waaye sañu koo jëfandikoo ci genn anam rek mel ni kuy jëfandikoo lu moom te loolu may ci la bokk doonte ñam koy may doonu mu ay jullit ñoom mën nañ koo jëfandikoo waaye du dagan moom may leen loolu bunt bu yaatu la dafa am yoo xam ne daal jullit sañu koo moom mutlaqan ci genn boo ko doon donn ci koo war a donn sax day sañoo ko doon masalan ku amoon wayjur wala mbokk moo xam ne daal jullit la waaye ma ngay fàggu lu xaraam ma ngay yar ay mbaam xoox wala ma ngay liggéey walla jënd na sàngara kooka bu faatoo nga war koo doon yow jullit bii bàyyi xel sa digganteeg sa borom yeneen alal yam fa bàyyi day moom nga sañ a doon waaye lay mbaam xuux ak lay sàngaraag yu ni demee yooyee sañoo ko miraas yooyee sa yoon nekkut ci yooye sañoo ko dugal ci sag moomeel doo ko maye doo ko saraxe doo ko jaay doo ko def nen na ndax moomoo ko loolu rek moo la ci musal Euh, kon kooku ñu jaawale jaay ko ndawalug mbaam ko bi mu xamee ne lii ndawalug mbaam la te mun du lu mën a delloo ca ñàkk ko jaayoon na ko sànni bi wallahu a laaj bi ci topp jullit bi nga xam ne daa am keneen ku ko tooñ moo xam jullit la ka aji tooñ ja jullit la wala du jullit mu yóbbu ko ci yoon doonte yoonu réew mi àttewul ci lislaam yoon atte alamaan waaja nangam ci xaalis jox ko ndax nangam jooju dagan na moom mu jëfandikoo ko waaw ci ni laaj bi ñëwee nangam jooju lu dagan la ndax faw ñu bàyyi xel leen na réew mu mel ni Sénégal atte woowuñ alquraanu karim atte woowuñ lislaam waaye loolu tekkiwul mukk ne mbooleem atte yi ñuy atte daa wuuteeg lislaam bëri na lu ñuy atte ci tribunal yi te bu lislaam doon atte it nii la koy atte wala mën na koo àttee nii loolu mooy lan ku tooñ nit ci ay këyit dem jël këyitu jàmbur bu def ci ay tappale ba nangam ca nga xam loolu mën nga koo lor mën nga koo yàqal lu bari mën nga koo dugal ci lu yoonam nekkul mu yóbbu la ci yoon yooyu bu ci lislaam doon àtte dana teg daan ka jëf-jëf jooju tappalekat boobu doonte amul xaddu amul gëtën buñ yaxal ne lii mooy gëtënam kooku dañ koy tensir dañ koy yar teg ko daan yuy tax ëllëg dootul def lu ni mel baneen saay-saay bu mel ni moom it dootul ñemee def lu ni mel daan yooyu nag nim mën a doonee jël yar duma ko mën doon tëj ko ay fan wala defloo ko nangam mën naa doon it alamaan ko doonte loolu boo delloo ci usul boroom xam-xam yi wuuti nañ ci ndax tensir danañ ko def ci alal borom xam-xam yu bari nangu nañ ko nee nañ waaw ñenn ñu ne déet ci yaram rek lay dellu lu mel ni ay dumaa ki tëjee yooyu waaye war doon alal wa ala kulli xaalin lii mbir tey mbir mooy ñii wax ne tensir mën naa doon ci alal bëgguñoo guddal foofu waaye seen wax mooy li gën a dëgër kon ki jël say kayit def ca naka sadu du noona fitna ju ne mënoon la caa dal mënoon laa yàqal lu ne kooku boo ko yóbboo ci yoon yoon daan ko alamaan ko xaalis jox la alal jooju dagan na nga lekk ko waaw loolu nag du nekk bunt bu ñu joyal du nekk buntu bu ubbeeku muy àtte bu ñu joyal ne saa bu nit alamaanee jox la dagan na déedéet am na léeg ci àtte yi comme ñoom dañoo am seen yeneen loi yoo xam ne sàmm wante wuñ caat loi bi yàlla wàccee muy alquranul karim seeni àtte dañuy tañaxul léeg-léeg mu dëppoo bu lislaam doon àtte mën naa àtte nii dàquwante wut ak lislaam léeg-léeg mu leer nañ ne daa wut ak lislaam am na nu muy demee euh, buñ alamaanee jox la du dagan ci yow nga jëfandikoo ko waaye bu dee ci lu mel nii moom aha kay lu dagan la yow laaj bi si topp Serigne Xaadim ñu ngi lay nuyu di ziyaara lu bari xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne bu weeru tabaski feeñee kenn ci yéen fas yéene tabaski bu mu laalati kawaram bu mu laalati ay weyam ba ba muy tabaski ba noppi loolu xadis la bu sax masala yi ci nekkit boroom xam-xam yi fuqahaa yi jàngale nañ ko te leeral nañ ko yëggul ci xaraam yëggul ci xaraam waaye lu ñu tere la tere ci bél képp koo xam ne daal yaa ngi waajal sa bopp ngir tabaski yaa xam am nga gàtt bi ba noppi wala fas nga yéene wut ko ba weeru tabaski feeñee ba ba ngay rendi sam xaru tabaski wala sa bëyu tabaski say we sa kawar sa kawar bul ca wax dara say we bu ca lewi dara ba ba ngay tabaskee ba noppi loolu mooy ndigal li bàyyeekoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndigal ci sharia nag moo xam ci alquran la wala ci sunna tekkiwul ne saa bu ñëwee rek waajib la lu ñu war a jëfee la léeg-léeg ndigal ñëw doon waajib waaye léeg-léeg ndigal ñëw it wane doon ne lii lu ñu sopp la ku ko mën a def moo gën bu dee tere it muy ku ko mën a bàyyi moo gën comme léeg-léeg mu doon tere lu xaraam la kenn sañu koo def léeg-léeg ndigal wala tere am yeneen maana ak yeneen ak yeneen yu yaatu yoo xam ne ñi jàng usul ak ñi jàng balaaxa jàng nañ ko ci téere yi laaj bi ci topp bàyyi Modou Thiaw carte yi mariage kat yi di mariage ak di bëlloot ak yu ni mel lan mooy atteb charia ci jaay ko waaw mariage bu dee jëf ji lu xaraam la teelu lu la kon jaay jumtukaay bañ koy defee it lu xaraam la lépp lu charia tere nga xam ne kenn mënu koo jëfandikoo ci anam gu dagan lii lu xaraam la loola jaay ko ak defar ko mayee ko yépp lu xaraam lay doon am na nag yu charia tere waaye luñ mën a jëfandikoo la ci anam yu dagat nit sañ koo jënd ngir jëfandikoo ko ci anam ko dagan yooye jaay ko dara nekkut ci li feeg wóorul la ne kii ngi koy jaay moom lu xaraam dong la koy jëfandikoo bu boobaa e, jaay ko day dagan waaw mariage nag li gën a wér ci wax yi boroom xam-xam yi moo xam dañ caa teg di di gañee ka xaalis walla teguñ dañ koy def rek di sànq seen waxtu ak di foofa mu amul benn njariñ moom lu xaraam la borom bi dafay al innama al xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min amali sheytaani fajtanibuuhu laallakum tuflixuun fajtanibuuhu moo tax lépp lu niroog yooyu nu ko jullit bi gën a sore nu ko jullit bi mën a watlikoo loola moo gën ci moom doonte ci borom xam-xam yi am na ñuy wax ne xeeti mariage yooyu bu fekkee teguñu dara dañ koy def rek xaraamul waaye li gën a wér daal mooy lu xaraam la mutlaqan kon defar jumtukaay bañ koy defaree wala jaay ko walla nga moom ko di ko may keneen mu di ko defee yooyu yëpp dimbalante ci ak mooy yàlla la dimbalant ci ak mbon ak caay-caay la moo tax lu xaraam la lu mata wat ndi ko la wallahu a'lam laaj bi ci topp sëriñ Fallou Mbeng ñu ngi lay nuyu di la ziyaara kii julli dégg ñu tudd turu yonentou yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sañna naa julli ci mom wala comme day julli du ko sañ a kay na julli ci yonentou bi na julli ci yonentou bi alayhi salatu wa salam jullit bi sa bu tuddé turu yonentou bi wala mu dégg ñu tudd turu yonentou bi te amul ben ngànt na julli ci mom bo démé ca al jawharun nafis da nga fekk serigne touba radiyallahu anhu ba muy jàngale wa ma ala man bi qunuutihi jahar shay'un walakin amduhu kurhun zahar xunuut gi ñu jàng ci julleeg suba la doon wax ne lu ñuy yelu la waaye ku ko biral jàng ko ci kaw dara warul la doonte doonte sit nañ nga tey jàng xunuut ca kaw loolu mooy ngiru imaam malik radiallahu anhu dajaa teg zaidin fi rakaatayni suura anil akhirataini fil ma'sura naka nonu ñaari rak yi mujj ci julli farata yi du melni julli tisbar takusan ge ñaar rak yi mujj yoyu naka non julli timis rakam bu mujj bobu nga xamne fatiha dong lañ cey jang ku ca jang fatiha ak sar wala nga jang fatiha tek ci lanen ci alquran lolay dara warul la dara nekuti donte sip nañ nga diko tay diko def mu tekki ne wa hakada abdun ala xayri albashar salla li samci dicrihi mimman dakar muhammadun salla alayhi llahu musalliman wa kulli man walaahu naka noonu jaam boo xam ne julli na ci ngën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam ngir daal di gaw turab loolu it bu dee ci biir julli la dara nekkut ci kon yow mii julli dégg ku tudd turu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga julli ci mom ak fum la meuna fek nak mo xam boba yaangi taxaw yaangi ngi yaangi yaa ngi taaya julli ci mom dara nekut qad kaana daaka amdan aw sahwan ara aw fi qiyaamin aw julusin qad jara kon yow mii julli dégg turu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga julli ci moom defoo lu aay beneen bi mooy bu imaam di xutba nit ñi tàllal seen loxo di wax amin léeg-léeg imaam day ñaan man naan imaam mooy ñaan ci biir xutba gi amin googu sax nag buñ ko mënoon a yalu di ko yalu mooy li gën léeg nag njuumte lay doon imaam day waare walla day digle walla day tere wala ma ngay leeral ay masala nit ñi di wax amin ngir ñàkk xam loolu danay am lu bare bari kon bu dee imaam day ñaan nit ñi wax amiin te yalu ko loolu dara nekku ci duñ ko birle it ya yeggul ci yàq julli waaye yalu ga moo gënoon euh, li mat a bàyyi xel daal mooy ñu xam ne xutba gi xutba la ay jàngale mooy nekk ci xutba ay ndigal ay tere ay waraate ay fàttali ak di leeral ay mbir leeral ay masala ak di jàngale lislaam moo tax loolu bu nit ñi xamee la imaam di wax teewlu ak jëfee rek moo ci war a topp bu fekkee nag ñu baree bari xamewuñ ko noonu imaam day jàngale ñoom ñu naan amin loolu sa dëgg-dëgg njuumte la imaam daa war a yee nit ñi xamal leen li xew ñu mën a wat ndiku loolu laaj bi ci topp mbokk mi ni ngi koy nuyu di ko ziyaara nee na daa dégg ay boroomi xam-xam di wax ne ki am soxna bu jullee julleem day gën julleeg ki amul soxna ay juróom-ñaar ku julleeg wax yu niroog yooyu daal tont li mooy loolu du wax ju wér loolu du alquranul karim du sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sharia li ciy sax yépp ci ñaar yooyu lay saxee li ci ci ñaar lay leere lu génn ñaar yooyu rek laneen la kon loolu wax la rek waaye du wax ju wér wallahu a'lam laaj bi si topp Serigne Mouhamad Thiaw ñi ngi lay nuyu di ziyaara lu bari kii ñu raw ci julleeg néew benn kàbbaar la am imaam sëlmal lan la sharia wax ci kii ba imaam sëlmalee day fay lañ ko rawee muy ñetti kàbbaar ya ko faat kàbbaar ya it bu dee néew baa nga fa yóbbuwuñu ko na kàbbaar ñaan jàng ñaan gam doon jàng bu noppee mu door a kabaraat jàng ñaan nga ba mu mag mu kabaar jàng ñaan nga door a sëlmal bu dee néew ba nekku fa nag bañ sëlmalee rek lañ jël néew ba yóbbu kon na toftale kabaar ya na toftale kabaar ya door a sëlmal boo demee ci muxtasaru cheikhi qalil ibnu ishaq rahimahullah wa radiya anhu ak yeneen téere yu bari yu jàngale bunt bi noonu lañ ko leeralee wallahu a'lam ba tey ñaareelu laaju sëriñ Mouhamad Thiaw jëm ci jullig néew ñi wax ne jullig néew imaam bu kabaare day jàng faatiha ñaareelu kabaram mu julli ci yonent bi bu kabaare kabaru ñetteel ñaanal néew bi ñeenteelu kabar mu ñaanal jullit ñi sëlmal waaw loolu day du maanaam lu sax la lu sax la waaye yeneen ngir ñoo koy jafe am na lu ko gën a sax gën koo wér te mooy lii ngiru imam malik radiallahu jàngale doonte lee lu sax la lu wér la ibnu abbas radiallahu anhuma jullee na néew bés jàng faatiha ca kaw ba mu sëlmalee mu ne lii da koo def ngir nit ñi xam ne sunna la ngir nit ñi xam ne sunna la kon xadis boobu moo ñuy tegtal ne jàng faatiha ci julleeg néew du soxla waaye même xadis bi sax day doyon na ngir tegtal ñu ne lanee na ko gën a sax mooy la ñépp daan jëfee ba ibnu abbas di fàttali lii balaa nit ñi di ko fàtte loola mooy lan mooy julleeg néew yëpp ñaanal néew bee ko tax a jóg amul jàng faatiha amul jàng beneen saar ki alquranul karim léegi nag nga gis ñu ëppal wala ñu réer di wax ne julli néew daa war a am jàng fatiha di tegtaloo xadisu julli la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab loolu njuumte lu rëy rëy la ndax julli yooyee ku ne xam na ne ba ko yonent wax booba mooy julli farata yi wala julli yi niroog moom nga xam ne aji julli ji day rukoo ak sujjóot di taaye di sëlmal julli néew beneen mbir la boo xam ne jotewul ak niroowul ak sax yeneen julli yi amul rukoo amul siggi ci rukoo amul taaya amul sujoot amul siggi ci sujoot kon li ko tax a jóg rek mooy ñaanal néew bi moo tax euh, ci ngir mi ngir imam malik radiallahu anhu ca kabaar bu njëkk ba imam day ñaanal néew bi kabaaru ñaareel bi kazalika day ñaanal néew bi kabaaru ñetteel bi yépp day ñaanal néew bi kabaaru ñeenteel bi euh, am na ñaan goo xam ne dana ñaanalaale way teew yi ak way fab yi jullit yépp rek euh, kon loolu mooy li gën a siiw waaye mooy li gën a wér mooy li gën a sax wallahu aalam laaj bi si topp mbokk mi day liggéey ca bitim réew fa muy liggéeyee waral ci moom mu jëflante ak assurance maanaam yañ ko war a fay am luñ ca téye ngir bu yeneen xewee ñu man koo taxaw ci nangam ak nangam waaw assurance noonu mu xewee ca réew réewi Europe yi noonu la xewee ci suñu réew mii ak suñu réew réewi Afrique yi ak réewi jullit yu bari yemul ci liggéey yi waaye kii yor otoom sax day yoonu réew mi ak réew yu bari dañuy waral ci moom mu jëflante ak assurance bu ko deful jafe-jafe man koo dikkal ak yu baree bari nit ñi di ci yëngu ci jamono gi assurance mënu caa ñàkk ànd ak loolu yépp nag ni ñuy ni ñuy jëflantee ci assurance dafa xaraam daa wuute ak njàngaleem sharia ndax xarar ak carte gu metti da am am na nuñ ko doon defee dëppale ko ak njàngaleem lislaam nit ñi mën a jëflante ak assurance ci anam koo xam ne lislaam da koy nangu maal asaf nag suñu réew yi mel na ni faaliwuñ lislaam ci yu mel noonu ñu ngi koy jëfee ci anam goo xam ne bu lislaam xaraamal la loolu nag la cay topp mooy yow julit bi nga xam dañ laa gax ci mbir mi maanaam sañoo koo bañ a def yoonu réew mi la ko teg mënoo koo bañ da ngaa loru da ngaa loru kon jëflante ngay jëflante ak assurance amoo ci benn bàkkaar ndax da ngaa loru euh, di dem dem di di ko jëfee nag di jëflante ak assurance ci anam goo xam ne yaa ko teg sa bopp yow la soob nga di ko def waaye mënoon nga koo bañ a def te dara bu la ca fekk yoon war ko ci yow te ni assurance di doxee xaraam loolu mooy li xaraam waaw maanaam képp ku yëngu ci loo xam ne daal assurance nekkut lu ñu waral ne foog nga jëflanteeg moom boo ko mënee wattandiku wattandiku ko mooy li war ci yow waaye bu la ko yoonu réew mi waralee nag tënk la ci mënoo ko génn nga def ko ngir danga loru dañ laa teg loo xam ne sañoo koo bañ wallahu a'lam laaj bi ci topp ba tey Serigne Mouhamad Thiaw gis ñoo xam ne buñ jógee jëm ca jàkk ja di julli ji dem fekk jàkk ji fees na ña ngay jullee ca mbedd yaak yeneen barab ya duñ jublu xibla waaye jàkk ji lañuy jublu loolu njuumte lu rëy rëy loolu njuumte lu rëy rëy mukk ci jullit muy julli di jublu faneen fu dul xibla li ñuy tuddee penku ci wolof doonte penku moom mooy fi jant di fenke daa fekk nag am na barab yu bari seen xibla ak seen penku dañoo ànd waaye am na barab yoo xam ne boo demoon ba ca Kaaba ga tey am na ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy julli dañuy wan gannaaw penku fi jant fenkee dañ koy wan gannaaw door a mën a jàkkaarloog Kaaba gi kon jullit fu mu mën a nekk ci adduna bu bëggee jullit jubluwaayam mooy almasjidul xaraam wet gi Kaaba gi nekkee fi lay jublu yaa xam yaa ngi jàkk ji wala yaa ngi ca marché ba yaa ngi ca kër ga wala jàkk ji fees na yaa ngi ci mbedd yi kenn jubluwul la. jàkk ji loolu lu xaraam la lu mat a wat ndiku la du wuute du lenn njuumte la ñàkk xam la ak réer dong la fi ñu war a jublu mooy xibla kaaba gi lañ war a dàkk waaye du benn jàkk wala benn jumaa ci àdduna bu ñu war a jublu defa julli loolu njuumte rekk la wallahu a'lam waaw doonte ña koy def nag bari nañ lool doonte ay boroomi xam-xam lañ wala ñu niroog ay boroomi xam-xam lañ qul la yastawi al-khabithu wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith loolu du mu baax mukk ña def na ñepp massé diko def teewul njumte dong la serigne bay modou taw loolu aada la loolu jotewul ak diine dara l'islam lim santana ci tabaski moy bañ jullee ba sëlmal xutba ba noppi imam rendi na gatam ñëpp mën nañoo rendi waaye day am ku jiitu am ñu ci topp di wër yooyu yeneen la jotewul ak diine dara wallahu am laaj bi si topp mbokk mi di leerlu boroom kër gu nekk bitim réew takk soxna fii ci réew mi ab diir mu faatu te gisewul ak soxna si benn yoon ndax soxna si dana ko donn ak lan lay donn ci moom tont li mooy waaw soxna si dana ko donn soxna si dana ko donn la muy donn ci moom it day dellu rek ci ndax borom kër gi bàyyi na fi njaboot walla déet bu dee bàyyi na fi doom doom bu góor wala bu jigéen walla mu bàyyi fi sët bu jógee ci doom bu góor soxna si ab sumun lay doon ci moom sumun mooy juróom-ñetteelu xaaju alalam bu fi bawul loolu nag soxna si doon ci moom ab robo muy ñeenteelu xaaju alalam kon soxna si dana ko donn dana ko eddawu borom kër bu faatoo te gisewul ak soxnaam bu dee maanaam faat na te gisewul ak soxnaam du tee soxna si donn ko du tee soxna si jàpp xedda loolu wuute na ak fase bu doon daa fase soxna si te gisewul ak moom waaw kay soxna yooyu la alquran ne fama lakum alayhinna min iddatin taxtadduunaha soxna si du jàpp xedda waaye ki takk soxna nekk bitim réew soxna si nekk ci réew mi ab diir yàlla dogal faatu na soxna si dama ko donn la muy donn ci moom mooy rubu'u wala sumul ni ko alquran jàngalee ci noonu ñu leeralee ko wallahu euh, ci topp sëriñ Fallou Diagne ci ngiru imam Malik xarmal lañ sopp nga yëkkati sa loxo beneen kàbbaar ci julli bu dul xarmal wax allahu akbar rek doy na naka noonu ci julli julli gu ëpp ñaari rakk baga ca ñaareelu rakk ba bay jóg booba lañ soppoon nga ne teg ba jóg taxaw temm door a kabaar waaye lu dul loolu rek booy jóg dangay boole jóg bi ak kabaar bi wallahu a'lam laaj bi ci topp Sëriñ Mbay Fall kii mage ba mel ni lu naax am xelam di dem ak dikk ndax sunna la ñu tabaskil ko waaw wala déet waaw kooku bu dee xelam a ngi teew mu bëgg tabaski day tabaski bu dee koo xam ne it ak njabootam ñooy saytu ay mbiram yépp di saytu alalam te am na alal ju mën a tabaski it nañ ko tabaskil wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi danga jëflante ak nit liggéeyal ko gannaaw ba ngeen juboo ci fay liggéey bi mat na moom mu lànk bañ a fay fay gu mat sonn nga ngir mu fay la nanguwut laa fay ndax dana dagan nga yóbbu ko ci yoon te yoon ni muy àttee du àtte bislaam ah kay lu dagan la wax nañ ko ca tontu yee jiitu réew mii di senegal àtte yi fi daw donte sukkandiku wuñ alquranul karim tekkiwul ne mboolem àtte yi dañoo wuuteeg alquranul karim yoon loolu rek ko fi tax a nekk. kii amee bor lànk féttéer lu bañ koo fay dañ koy forcer mu fay boram te bu lislaam doon àtte noonu la koy àttee day fay bor ya bu dee am na lu mu fayee bu ko amul te am ay bagage ay jumtukaay yu ñu mën a jaay fay ci borom ñu jaay jumtukaay yooyu fay ci bor ya te la nga dépassé ngir jot ca bor bi it loola buñ ko ko alamaanee mu delloo la ko loolu it dara nekkut ci àtte bu jub la àtte bu maandu la laaj bi ci topp mbokk yi dem ca jàkk ja ngir julli suba waxtu wi jot na waaye jàkk ja ña nga tëj ay buntam yépp donte lamp ngay tàkk ci biir mën naa am am na ñu ne ci biir mën naa am kenn nekku fa waaye daal waxtu wi jot na ñu xaar ba sonn ba waxtu wa cate jàkk ji ubbiwul waaw foofu ngeen nekk ca ëttub jàkk ja ca buntu jàkk ja bu ngeen fa mënee julli julli ba te dem ñibi xamne yeen am ngeen gëneelul mbolo am ngeen yiw wu nekk ci julle ca jakk ja ca mbolo bu de nak fofa du fuñ mëna julle ngeen dem ci benen barab mo xam da ngeen di delu seen kër wala benen barab bu ngeen mëna julle julle ba batay loola moy farata ci yeen bu ngeen ko defé yeen seen yene matna am ngeen yiw ak li nekk ci julle ca mbolo ma wallah laaj bi si topp sëriñ aboo Guèye laaj bi mooy lu mel ni ay darab yi ñu lal ci kaw lal waaye dañ caa dessin ay awra awray góor wala awray jigéen walla yépp lañ ca boole moo xam dañ ko ñaw ràbb ko walla lu am couleur lu mën a doon lañ ko dessin loolu lu xaraam la lu xaram la lu ñaaw la lu mata wattandiku la loolu daal ci gàttal lu xaraam la jullit bi da ko war a wattandiku waaye lu mën yàq la rawat na xale yay yaru ak di màggee ca kër googa wala laaj bi ci topp sëriñ Mouhamad Niang ñu ngi lay nuyu di la laaj bi mooy boroom kër gu génn àdduna bàyyi fi alal bàyyi fi njaboot njabootam gi am na ci ñu toll ci jàng ña nga ca daara ja di jàng ginnaaw bi mu faatoo alal ji mu fi bàyyi lañ daa jël di leen ci fayal seenu njàng ba tey jii nag ñu jublu ci miraas mi bëgg a xam loolu ñu doon jël ci alali aji faatu ji di ko fayalee doomam yi doon jàng moom fan lay féete ngir leeral ci masala mi dañuy njëkk xam ne ab jullit ab jullit keroog ba mu génnee àdduna ba mu wuy jee boroomam la ko dépasse wàcc jullit bi faatu te bàyyi fi kër gum moom wala sax guñ ko abaloon te ña ko able woon nangu njaboot ga continuer fa dëkk wala kër gum doon luye te teewal luñ mën a fay luye ba idday soxna yi di mag waaw këram googu de dañuy continuer dëkk fa ba diirub xedda ba di mat muy ñeenti weer ak fukki fan lu jëm ci ay dépense nag moom ba mu faatoo rek la ko dépense teggee ko looloo tax ñu bëgg bu nit faatoo ñu teel koo miraas teel koo miraas ba njaboot gi mu fi bàyyi bu dee amuñ ñu leen dimbale mënu luñ seen bopp amuñ fenn fuñ sukkandikoo ngir dund ñu mën a dund fi alal ji nga xam ne doon nañ ko ci seen kilifa gi wuy ji boroomam kon ba boroom kër ga faatoo ñu continuer di jël alalam di ca fayal doomam yuy jàng foofu la njuumte tàmbalee loolu njuumte la loolu njuumte la ndax ni ñu ko waxee rek mooy boroom kër gi faatu na dépasse wàcc na ko dundal kenn wala faj kenn ku wéradi wala fayal kuy jàng wala kuy def la neen yépp rek teggeeku na ci kaw kon njuumte am na ba noppi njuumte lii nag man naa doon ak jalgati jalgati bu amee aji jalgati ja moom mooy fay moom ñi doon jël ci alal ji di ca fayal ñee di jàng te kenn santu ko ko kooku moo moo sànq alal li jàng waaw ndax nañ bay xel ne aji faatu ji doom yi mu fi bàyyi ak li njàng di baax baax man na am domi yenen yeneen doom yoo xam ñoom nañ jang wala yegguñ fi ñu wara jangé wala toll nañ ci jang waye def wala waye defuñ ko wala fañ koy defé fayluñ ngeen fa dara ta ñoom ñep ñoo bokku yam haq ñoo bokku yam haq ci alal di kon jël di fayal ñen walis ñeca def lolu ñoom te la bu fekke nak du jalgat mom mi doon def lolu ci ndigal la ko defee xëy na mbokk yi ñoo ca waxtaan yeneen mën naa am way jur yu jigéen sax ñi doon jàng wala seeni nijaay wala seeni mag wala yàllaa xam waaw loolu day kon ñoom dañ leen a fayal ci seen alal loolu bu ñuy miraas dañ koy génnee ci seenu cër bu ñu xamee ne ñoom nangam lañu war a doon nangam jooja nañ xam ne ñoom lekk nañ ci lu toll ni lañ leen fayaloon ca njàng ma kon daal Euh, loolu rek mooy àtte yi ñi doon fay loolu bu dee ci kaw jalgati ci lu leen kenn santu lañ ko defee dëgg-dëgg ñoom ñoo tooñ ñoo sànq alali jàmbur ñoom lañ war a topp ñu fay alal jooju ñu miraas ko way doon yépp yem ci xàq bu dee defuñ ko ci jalgatal nag loo xam ne lu ñu waxtaanee la kilifa yi ñii ñu doon fayal ñoo ca ànd waaw kon de ñoom ñoo jël alal ji dépassé waat ko ci xale yi seen alal yi bopp lañ leen fay leen ñu jàng wallahu aalam